jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci jàmbaar news mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne di leen bége bu baax a baax a baax di am kontaante ak mbégte bu baax a baax a baax rawatina ci kóolute bi ngeen am ci jàmbaar news di leen wax ni jàmbaar news mu ngi ñëw ak yeneen yu bees tàq incha allahu rabbi mbokk yi ku ne xam na ni le 21 juillet dafa nekkoon bis bu spécial ci wàllub làmb Albourakh Events organisé ko fële ci arène nationale. Balla Gaye 2 fas yéene woon laale fa ak ki nga xamante ne mooy tafaatin Tine tey nag ñu toog le Messi des entraîneurs laa ko tuddee muy Lamine macha allah du yor ay xale encadré leen ba pare wàccee boppam ba tolloo ak ñoom ndax ay xale boo yoree ay xale bëgg ñu dox say ndigal wéyee say waaw da ngay wàccee sa bopp ba tolloo ak ñoom di kaf ak ñoom di waxtaan ak ñoom te teewul bu ñu duggee ci diggi géew bi mu def résultat moo waral tey ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom lu bare bare bare ci wàllu làmb Lamine maa ngi lay nuyu baax di la siyaar le Messi. jili maa ngi lay fay. di nuyu structure jàmbaar production bi yëpp. di ko jiital nuyoo bi Mansour Ba seen kilifa seen PDG. di si teg Papa Sow. di nuyu axlu làmb yëpp di baal ñëpp àq. di baal ñëpp àq di nuyu la axlu làmb. di la nuyu yow tamit sama lakkal sama lajal. Mhm. di nuyu waale sama séeri joor Dior Fall. waaw seen séeri waaw maa ngi koy nuyuwaale au passage moo ma gën a sonal si kaw su sa jabar jooju billaay. macha allah Lamine li may ñëw mooy bisu le 21 juillet bi rumeur yi dafa bari woon Lamine Golo du ñëw lamin Golo ak Balla Gaye jubboowuñu Lamine Golo Lamine Golo lamin face to face bi nga def benn surprise fël la Balla dem jël sa loxo tóojal ko. xëy na loolu sax du woon loo xamante ni sénégalais yi ñu ngi ko doon xaar mais boobu day wane nii rek li ngeen doon wax wala yu mel noonu loolu ban gis yi nga ci am. waa sant yàlla rek ndax àdduna moom lépp rek xam nga sénégalais yi moom saa waay Sénégal dafa naqaree nekkal ndax su ñuy gis ñaari nit di toog ba benn instant gisatuñ leen rek dañuy foog lu ne mais maa Balla Gaye jotoo ñu dara Balla Gaye daa nekk si liggéey ma nekk si sama liggéey te gis nga fii soo ñëwee gis nga si parkin bi bi nga ñëwee fekkoo fi kenn man rek maa fi nekk maag secrétaire bi ndax léeg-léeg gars yi dañuy génn ñun ñëpp duñ mën a demandoo nekk si yenn si terrain bi si business bi si liggéey bi laa nekk rek mais gars yi duñ comprendre même ak Balla Gaye jotewuñ dara c'est que Balla moo baax sax fesufi keroog open press ba muy leeralaat pour war leen kii sama waay la di capp loolu soo mais mënoon na leen bàyyi si biir rek xëy na làmb ji suñ ma gisoon dinañ na ànd ak te ñuy jotewuñu woon dara jotewuñu dara maak Balla Gaye te Balla Gaye gisuma lu ñu war a jote maak moom léegi ci biir làmb ji bi mu ñëwee yàgg Balla est-ce que benn avant jouru làmb ji gisee ngeen benn yoon waxtaan wala. fi muy ngem boo maa ngi fa woon nga naan ma nangam maa woon ko hmm. ñoom Aziz Ndiaye fi muy ngem boo nga naan ma maa ngi woon ko ñoom Aziz fi muy ngem boo maa ngi fa woon. mais wax ngeen ci combat bi avant muy dem stade wax ngeen ban moment ngeen wax. wax nañ ci téléphone wax nañ ba samedi si guddi rek. si guddi rek. Hmm. wax na wax nañ. def yooyu yëpp jouru combat bi wax nañ te soo gisee wax ji jarul woon muy bari ndax man dama koo waxoon dama ne woon combat bi combat Balla la ko jëlal boppam te Balla lu mu jëlal boppam jarul wax ji di si bari ndax man xam naa lu mu jëlal boppam mooy samay waxee ma doon wax soo gisee ñuy wax maa du ma si du woon dara parce que xam naa li mu jël te kenn ñun ñëpp xëy na ñëpp ñu bëri nanguwu ñu woon moom mu jëlal ko boppam assumer ay responsabilités kon kooku jarul di ko sooñ si dara lépp lu si war rek da koy def te yaakaar naa ni ma ko doon waxee noonu la amee léegi Balla Gaye yan kàddu ngeen déggante yéen ñaar. kàddu la kàddu làmb ji rek Balla Gaye soo xoolee si. ko soo xoolee si combat bi maa ngi doog a wax ak moom benn instant si jouru combat bi laa wax ak moom. yi si des yëpp mbër naka moral bi nice lépp jàmm yooyu lañ ñu wax mais jouru combat bi. laa ñëw waxtaan ak moom. Mhm. macha mhm. mais tey ñu ñëw ci Balla Gaye kàddu yan ngeen weccante yéen ñaan lan ngeen waxante. mooy li ñu waxante mooy li ma la wax rek. mooy ñëw waxtaan ak moom xam naa lim nas jëloon na ay décision teewul bi ñu demee ba des du dul digg géew teewul maa ngi woon ci mikaay bi ñu ngi wax lu mu bëgg ne wooma ngeen gis Lamine nii Lamine naa ñu expliquente ñuy waxtaan ba benn kàddu rek laa ko dénk bi muy waaj a bëri ji bi mu desee bi mu simmee ko ba pare ñuy takki gaalaat ma ñëw fekk mu ñëw ne ko mbër mu sëgg samay noog mm-hmm. mu sëgg samay nopp sama gémmiñ déglu ma ma ne ko làmb ji tey jii bis bi sa bis la lu mun di xew waroo ko ñàkk kii da ko daan ñaari yoon amoo lenn loo xam ne ni tey war nga koo ñëw di ko imposer ndax xam naa ko dama doon bañ tey jii mu bëree waale noo xam ne ni ba yàqal rey ñu ba rey boppam reyaale ñu mm. ma ne ko bis bi tey jël sa temps rek bul yàkkamte tafaatin daa diis mm. combat bi leen la rek seere ko dugg si ak sam heure boo ko dóoree defal benn recul xam ni day ñëw mm. su ñëwee di fayu si daa diis heure boo ko fàqee mën na ñëw soo ko soo leen korontee mën nga koo dóor fukki dóor balaa muy fay parce que daa yéex. mun mhm. lu mu siy teg loolu amul problème di ma déglu. kon Balla si su coolee fi nekk nii rek mais su ma ko waxee daf may déglu. Ah, mais loolu nag gëmoo woon ni bu demee ci digg géew bi dina pratiquer loolu. ndax lan. waral jooy. non waaw yi daa am lu ko waral non jooyu ma ngir Balla Gaye ngir dara mais dama xam ni kutoo kut Omar dafa waroon daan kombaa bi. man combat bi ni ma si duggee woon kutoo kut da ko waroon daan ndax xam nga daf nit ñi jaxasekat yi ak waxkatu lu ñaaw yi ak waxkatu lu bon yi nga xam dañuy nekk sama digganteeg Balla di ci wax lu ñaaw loo xam ne xam ne man ba ñuy sonn man Balla Gaye Thierno Gueye Baye Mandiaye commissaire fekku leen fi woon ñoom ñëpp Balla Gaye guddil naa ko bëccëgal naa ko lu ne dund nañ ko fu ne ànd nañ ko lu ne dund nañ ko si diggante xarit ak xarit mais soo fekkee ñaari nit ñoo xam ne ba ñuy ànd fekkee woo leen soo leen ñëwee tey mu neex rek yéen ngeen ñëw fekk si ko kon soo leen déggee ñu am poro problème jéem see leen wax si lu baax mais sama digganteeg Balla Gaye dama xam ñi siy wax lu ñaaw yëpp ëllëg ñoo si des ñoom ñooy rus ndax man j'aime Balla te xam naa ne Balla Gaye bëgg na ma. xam nañ ko mais jooy yi laa wax lu waral doon jooy. mooy li ma wax rek kutoo ku dafa waroon daan ndax dama doon dégg lu ne si kombaa bi Lamine xaritu Jéey laak gis ngeen bi muy bëreeg Boy Niang xaritu Kànji laak yu ne nga koy dégg. gis nga jéey na nekk sama xarit kanji na nekk sama xarit kanji sama xarit la kanji dara si àdduna mënuma tàqaleeg moom ndax xam nga tax mm-hmm. relation personnelle lañ am maak moom sama digganteeg moom du ay làmb mm-hmm. te sama digganteeg moom dafa jiitu lii lépp dafa jiitu ay diggante ay Balla booy ñàkk ay Balla avant Balla Gaye roi des arènes mm-hmm. xëy na léegi lañ ko gën a mën a fës léegi la fës rek mais man ay ay ak ay milliards ñàkkeew ma fayda sax fu ma di ñëwee di ma corrompre wala may def nit lu ñaaw sut si ma def ko xamne da nek sama bir xol bi ma bëgg ko muy sama xarit ak lu mënta xew jéey ta jéey tamit nonu jey sen dem na ba combat bi dama ko don daw fuma deg dégg jaar na fi géej waaye sax dama koy daw ndax xam nga dama koy daw bëgguma sax nit gis ñu taxaw ñu ne ko gis nañ Lamine ak géey ñu taxaw ndax am na yenn yoo même suko ko gëmul sax 100 sax day jouer ci mental nit ndax jey tay nit ku bax la momit mom tay di mu mu don doon kat mais wul da ñëw woné fim fété te ñun fi mu féete am na si plein droit ndax mbokk la mais ñun deretu géejawaay mooy daw suñu yaram waxuma waxi sax Balla Gaye de mais deretu géejawaay muusu géejawaay sax suy bëre muus ba la ñuy faral mais nit ñi suñ xamul xamuñu c'est que ñu bëri de gis nga yow mal am buntu safara dinaa fa dinaa fa dugal ñu bari su ma leen billaay wala ndax xam nga lu tax ñiy wax ñëpp ak ñi may seedeel ñëpp dama leen a gën a set xol xol mooy nit taw tooguma pour tàgg sa bopp wala pour wax daa de mais man xam naa ne maa leen gën a set xol te man awma benn xolu iñaan si nit awma benn xolu soxorante si nit tey jii Balla Gaye am komba ma koy jéem a yàqal wala da koy suuxlu lan la may jariñ dañuy dañuy waxee noonu rek. mais dama bëgg na ñu ñëw ci di doomu jàmbur. di soutien de famille ñu bëri yaakaar ko si. Lamine Golot sonn si Balla Gaye yàgg sonn si moom ndam lu ne mu indi ko ndam lu ne mu carrière Balla Gaye ñun dañ see joué kon lan la ma Balla gay def lu tax ma koy def lu bon am na yoo xam ne dafa ñaawul sax dafa ñaaw sax si wax si gis-gis ba di ko wax. mais nga yu metti ñu ñëw ci combat bi nag. Balla Gaye dellu si waat. dama ko yërëm. ndax mooy làmb. Balla Gaye mooy làmb te combat bi ak lu mun munti xew waru ko woon perdre avant combat wax naa ko ne senegal nañ ko ñaanal ndax Balla Gaye su amee komba làmb yëngu day neexal te àdduna ñoo ko bëgg mm. kon nañ koy ñaanal muy daan. nañ ko ñaanal jamm ak tawféex. bu pertoon combat bi lan la mëna def ci carrière Balla Gaye su pertoon damay bayyi lam man. yow mi hmm dot kenn dotuma gisati ma and ak mbeur kon làmb ji tolo na la foofu. waaw te waxee wo ko jëfé wo ko. wu mako jëfé ndax xam nga lu nit lo décider jarul nga koy wax. Mhm. soko ko kon day mel dang ci si ndimbal wala dang ci si lu conseil. Balla Gaye su ko tafaatin daanoon. dama doon jaaree foofu bàyyi ndax ñëpp xam nañ Lamine Golo tey mu ren yàlla def na performance yi mu def mais mbër yi ma yor yëpp daan nañ xale yi di bëri di daan mais su Balla Gaye daanoon tey ji lama def du feeñ su daanu woon moo tax man kutoo kut maa ko gënoon bëgg ndamam ndax def naa ci loo xam ne nii waxuma ko tinuma ko mais damaa xam ne loolu sama warugar la dama ko war a def def ko. Balla daan tafaatin mu mel ni Lamine dafa dañ ko takkoon takk bu dëgër tekki ko ñu gis beneen Lamine bu ñu xamuloon buñ gëj a gis ci Lamine mu mel ni victoire bi daal yóbbu na Lamine feneen. waa sant yàlla ndax déggoo la ndam lii dafa neex ndam lii dafa neex ak surtout ni mu ko bëree ak ni mu ko defee moo neex mooy fu ñëpp ne woon na mënatul mu ñëw wane njom ak ngarme Balla Gaye combat bi da koo ñëw bëri ko si ngor ak ngarme ngor ak ngarme ak njàmbaar li ma waxoon tafaati ne ko su dee fit ëpp ko Balla su dee bëre dàq koo bëre su dee njom ëpp ko balagay xëy na doole gi la nit ñi doon xalaat ak di wax ndax maas rëyaay ba mais xamoon naa ne ñett yi su ko nit amee mun nga daan ku ne te ñett yooyu daa nekk si Balla Gaye. erreur bi Tapha def ba daanu lan la. Tapha loolu laa ko doon ñaanal. mooy jour le 21 lu mu def yàlla bu mu baax. defe naa ne loolu laa doon ñaan si micro bi. mooy lu mu mënti indi ak lu mu mënti xalaat yàlla bu mu sotti. kon erreur boobu yëpp damay ñaan sama ñaan moo nangu rek. Hmm. ku ne xam na ni plaqué forum la est-ce waroon na mën a plaqué ku mel ni Balla Gaye Balla Gaye résister ak Tapha Tine performance yi mu def ndaanaan yi mu jot daan trois derniers combats bi ndam yu rëy yi mu ci pour mu daan mbër yombul mbëru tànk Balla gay mbër la plaquage du ko daan si côté bëre lay wax ak yow mbër mu mel ni bala gay pour nga plaqué ko yóbbu ko du yomb ndax mbëru tànk la moo tax plaquage boobu tiitu ma ko defuma ko ndax Balla Gaye heure bu ko jàppee daa sëgg si kawam it ka xam nga ni plaqué xam nga kan la mën a daan pour moon la si mbër mbër mu jàpp nenge ñente sëgg ba sa collaborateur baal bi sëgg lépp kooku heure bu ñu la dóoree plaqué pour nga siggi balaa ngay siggi bay defaru bala Gaye day heure bu jàppee day siggi moo tax heure heure boo ko plaqué su tegee deux pas trois su tegee loxo bi mu deñ léegi Balla Gaye daan na Tapha Tine nee nañ l'empereur bu bees am na ci lamb fois Balla Gaye fan la war a jëm ci carrière am instant yi ñan ñooy ay adversaire am potentiel am. Balla Gaye amatul lu muy prouver si làmb. Balla Gaye ñëpp ay adversaire am la ndax xam lu tax bëri na ak ñëpp bëri na ak ñëpp ku leen la fi mën mooy bëri xale yi mais su dee côté adversaire Balla Gaye amatul si làmb lu mu mën a defati safee nit ñi mooy doon na des arènes mu ngi ni tey ji tegaat nañ trophée boo xam ne nii neex na torom nañ ko tegee yàlla sunu borom def ko mu nekkaat si loxoom kon Balla Gaye amatul leen lu muy prouver si làmb xam nga Balla lu muy def. tol ci menc na entraîner gëna nek at xamni xala la gëna a rafetal parmarèsam gëna wutat xaliss hmm sen xel da nek ci modlo non non man sama xel nekul ci modlo lolu mom moom suwaam la mom mbeur mi gën di laaj ba xam mom xelam da ne ci modlo wala nek ci. Mm. wa mais lolu man du sama choix moom. Mm. Mhm. dama gis chaque fois dañu nan modlo daf ne ci ay discours mom moom mayewul revanche ñaanu revanche mais supporteru Balla Gaye biñu biñu bi ñu wala ñi ñi jege Balla Gaye ñëpp. Modou daal la ñuy joxañ baaraam na ñëw ñu teg l'empereur moom mu teg roi des arènes ñu non Modou wax na loolu ba mu ko waxee du ko waxee du tey te du ma dindi ay waxi nit ndax Modou lu mu bon maa ngi koy nuyu au passage kilifa la te champion la c'est le roi Modou Lo mooy roi des arènes Balla Gaye mooy empereur Modou loo bëreeg bala gay si moom lay dépendre mhm, si moom lay dépendre ndax moom moo taxaw ne dootuma bëri waxul sax xibaar Modou daf ne woon dootuma mayeti kenn revanche xale yi laay bëreel nit nag kilifa su jëlee ay décision da nga koy nangul décision mais mënu ma see améliorer lenn loo xam ne ni mën naa see juum te su boobaa dama koy tooñ te sama àdduna bëggatuma di tooñ te bëggatuma di wax ak mbër loo xam waruma koo ndax man yàlla def na ñoom ñëpp awma si kenn sens interdit ku si dajal si mbedd wala fu ñu mën ne dinaa la nuyu dem sama yoon mhm. dañ dëpp gi mooy combat royal bi àdduna bi yëpp di xaar bi ndox ci diggante Siteu ak Modou wax naa ko chaque fois yaay Messi des entraîneurs de lutte macha allah ñoom ñaari xale yi lan nga leen gisee seen face to face bu mujj gis nga Siteu bi mu ñëwee moo du dongali ñoom ñaar gars yi wax nañ ban gis-gis nga ci am. waaw di si félicité wala waa jàmbaar production ñoom ñi nga xam ñoo décroché combat bi muy Mansour Ba ak ñoom Papa Sow ñoom ñëpp maa leen di félicité di leen wax tëgg nañ combat bu neex ndax Modou li mu waxoon rek la def mooy xale yi laay may loxo ndax su làmb jaadu woon kon tey du bëri sax Siteu mais dafa bëgg confirmer li ma li mu leen waxoon rek maa ko siy félicité bu baax muy làmb ju neex. làmb ju neex la nag tey ji Modou ñëpp xam nañu tey jii kenn gëmul ni nag Siteu mën na koo daan mais làmb reenu ñaambi la tey jii Tapha Tine gi kenn gëmul woon Balla Gaye mën na koo def nii kenn gëmu ko woon yow nii di wax sax gëmoo ko woon mais làmb moom reenu ñaambi la si kaw lay fekkante Modou na ko préparé respecté Siteu xam ne Siteu adversaire am te Siteu yor na lu mën a daan Modou Lo non yor na bëre daan Modou loolu moom li may wax ni waxuma ko pour dara waxuma ko pour neexal Siteu ndax man xee ne faraluma Siteu waxuma ko pour luy déstabiliser Modou ndax faraluma Modou Lo ñoom ñaan ñëpp maa leen di ñaanal jàmm ak tawfeex que le meilleur gagne mais làmb la joo xam ne ni Modou su daanee Siteu du bett kenn dañ naan xamoon nañ ko mais su ko Siteu daanee su boobaa yuuxu loxo dina dar gémmeñ hmm. euh, école de Balla Gaye actuellement nii ñaara ñaara journée moo leen dese daa mel ne jeexal man de fi ni man daal dama part man moom tëj naa sama saison man. noo damaa sonn nit laa tamit nit laa dama sonn mënoo toog atu bi yàlla lëmb plus de six mois xaw ma sept mois xaw ma neuf mois ngay daw ci benn affaire un mois lañ am man moom maa ngi noppal moom. kon kenn du la gisaat am na booy yu si am combat am dina leen yóbbu man dama sonn dama feebar nii may wax yow wéru ma hmm. waaye wéru ma ah, maa lay jaajëfal baax sa disponible. maa ngi la gën a jaajëfal di la kontaanee bu baax a baax di la nuyuwaat ak yéen ñëpp. di lancer waale waa ab benn appel boo xam ne diggante parcelle parcelle géejawaay mm. nañ xam ne duñ ay ennemi ñun ñoon ñëpp ñoo bokk nday ak baay damay gis supporteru Modou Lo yi wax fii supporteru Balla Gaye yi wax fii Modou Lo Balla Gaye ñoo ñoo far ñoo bokk sport bi gis nga fuñ daje day rafet kon nañ fexe ngaloo ngaloo yii ñu koy ñaawal ak yii ñuy waxante yi yëpp amul njariñ Modou su bëggee bëreeg balagay Gaye ñoom ñooñu mënuñu koo téye bër jël Balla Gaye mm. Balla su bëggee jël Modou kenn mënu koo téye jël Modou mm. nañ bàyyi wax yi ñu siy wax xam nyari ñaari nyom, ñom ay magum jëm lañ ku ci nek am nañ droit xam nañ ñooy mayante xaalis suñu waré beuré dinañ beuré mais jarul di saaganteeg waxanté bék yoy yëpp amul njariñ ma ngi leen di ñaanal jamm ak tawfiq diko ñaanal ñëpp Modou combat bi mu lim si bëgg mo xam yalla na ko defal yalla defal sita tamit combat bi lim si bëgg yalla nak ko yalla defal balagay na nekkaat ci course am nekk si entraînement ta xamni mom balagay mom ku bëgg am xaaliss mom ngay bëreel lolu mom ciowli mom ku ko bëgg a gàdduwaat di yëngal lamb balagay ngay beurel motax ndama lolou may deg mu ne fi di ngar-ngari pour bëggati ciow du du jall de. waaw jarul tur turam way koku Eumeu sen nga beug wax naan non waxuma la euma sen de dama wax. non non non ndaama buy kër-kër ah. euma sen daan na deux fois nga ne ndama non degol li man koku du ma wax. ay wara wax lol euma sen mo la dan deux fois dan Sa Thiès rajaxe way jeexal ko. yalla ah, ak lu mën xew nak géejawaay way xamnañ wa Pikine comme wa parcel ni xamé wa waa yalla baxna amu Sène daal leen daal laay ñaan mom heure bu nar tay beureug mbeuru mbëru géejawaay wala mbeur mo xam damay and ak mom ci stade ba mu koy daan yalla bu lamb ji am. lu tax loolu. non man ma bu Eumeu sen yow man andate ak mbeur mu daan ma ci stade de ma ko gënal. waaw oh, daf leena a jeexal nag. non nangul nako nangul naa champion la. lepp la mais wax deug yalla man mom ay mbiram mom doyna na sëkk quoi. bëggoo mu beureug balaga Gaye. bëgguma de. Balla Gaye nag mooy li may mooy wut xaalis. mooy bëri su ko neexee ji waaye man ragaluma kenn ndax man nekkuma si. digg bi boo nee am indi mbër mu am a Sène loolu dee moom ko gënal kon bëreeg Eumeu Sène am na fu. Balla Gaye su bëggoon jël Eumeu seen man dama ko tee jël munuma si dara di ah. ndax millions yañ koy fay man munuma koo tere. Ah. munuma koo tere mais su fekkee da koy jël rek yàlla laay ñaan rek hmm. yàlla laay ñaan hmm. su ko leeree ni tey jii du ko daan yàlla bu yàlla def bu ko kenn mën a ba mu nangu combat bi yàlla na bañ yàlla na wut ay argument yoo xam Balla Gaye sa jël ko waaye Eumeu Sène bu Balla Gaye bëriwut ak moom mu tafaatina ko daan mu ñëw jàpp tafaatin bërki démb dóor ko ba mu dee daan Balla tafaatin bi mu ko waxee Balla ne ko ñi la daan ñëpp maa leen duma daan leen Balla Gaye def na ko maa la daan yow mais Eumeu Sène tamit loolu bu ngeen bëggee wax da leen wax maa leen daan daan sa rakk daan sa mag waaw garaaw man garaawul waay zone fi ne dama jóge si victoire ko du ma fi nekk sax di may koo di wax si koo xam mooy ndaama loolu ndaama loolu war a yàlla baax na yàlla bëri na sutura yàlla na yàlla ndaama bu yëgul njool yàlla na def jàmm ndaama bu yëgul njool yàlla na yàlla def jàmm rek man moom Pikine wax dëgg yàlla aw ma fa mbër benn mbër laa fa am moom laa faral muy Ama Balde ñi si des ñëpp sama nekkul si ñoom jarul sax may toog fii di wax ak Jacob Balde sax ndax acte bi mu defal keroog Balla Gaye man ku bëgg Balla gay dama lay bëgg man Jacob yàllaa def sax daf maa neex man wax dëgg yàlla hmm. si la ak Babacar Balde doomu Jules hmm. ñoom ñëpp maa leen nuyu bu baax di leen siyaar pok kooku moom sama fiis kooku sama nat peleñaa la kooku moom na ko yàlla defal jàmm rek kooku moom aw ma lu may wax si moom kooku dama koo bërgal dama koo bërgal baaw ak nit moo gën a nite kuy nite mais man dama koo bërgal du ma wax ay waxam jaajëf jii de waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa Lamp Fall automobile bii nga ma fekk di leen sant ñoom ñëpp di nuyu Balla Africa laay Mambay Awa secrétaire bi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu sama famille yëpp su ma limee rek damay juum nuyu naa sama famille yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko laal sama bopp di la ko ñaanalaale yow tamit jii la yow nit ku baax nga wax dëgg yàlla maa ngi lay ñaanal li nga bëgg seen site bi yàlla na ko sunu borom defal waa jàmbaar nañ la jàpp nañ la jàpp da ngay sonn xam nga di jóge fii ba parcelle di ngan di ngan si tàngoor bi nañ leen di jàppale quoi moo gën Mansour a gën a nay si kaw suuf moo Papa saw waaw da xam nga géddoon naa seen micro non dañ ma fi digoon luñ deful ñoom ñaar non non papa dégg ma fii ma wax ko ñu waxtaan ma li ma koy wax mu ne ma maa ngi dem léegi léegi léppay ñëw boobu laa gën a dégg nga la man kay papa laa gën a weddi sax moom nit ku baax la nag moom muy nit ku respecté nit mais tamit mook papa nag mook man Mansour tamit am na yenn yoo xam ne ñun lii lañ am lii ngeen am ak ñun war nañ mën di mooy loolu yaa ma gën a xam wax ju yegg dox wuyul wuyul wuyul Lamine nag papa sax wuyul Lamine nag jot na ngeen sax dama koy soxoree xool ah. non waaw non Mansour doo nag la Mansour woo ko. nu ma ko ma koy wax du ma koy wax. non vidéo bi envoyé la ko. Youssou Ndour bi muy bëreeg Talfa. père ba dénk ko dig ko xaalis. ñu ta ma Youssou Ndour ñu am fu ñu jóge juge jógee côté fële côté Yoff mu ne day jaar kër père ba ma ne ko nañ dem mu ne day jëli xaalis bi mais biñ dem foofu ma yéeg si kaw kër bi ma gisee Mansour damaa départ. wóor naa yeggu ma dama ko gis rek départ dugg sama biir oto Youssou ne ma lii da ma ne ko non yeggu ma de Youssou noonu la mujjee départ ah. xaalis boobu ba jël ko si père ba ndax man damaa départ rek man suur tamit. jaajëf waa lay jaajëfal macha allah jërëjëf.